salaamaaleykum Ira Ndao coow li bari na maa ngi dégg lépp sama kilifa nag naa la respecté mais Serigne Mbaye Sy Mansour Serigne Babacar Sy Mansour du moroom du moroomu benn xale nen la ku dal ci kawam toj ku mu dal sa kawam nga toj juur nga demal tiwaawan nga jéggalu yaa ngi dégg te nga bàyyi di wax ne mun Mountakha kenn mënu laa jaxaseeg moom ñun ay tiijaan nan kenn jéemawu laa jaxaseeg benn Serigne loolu yëfu naafiq la ak saytaane kenn jéemewu laa jaxaseeg Serigne Serigne Babacar Sy Mbaye Sy mooy dogal mooy sunu kilifa mooy responsable bi lu mu ànd suba ba ngoon ànd nanti lu mu àndul àndum ñu ci yow da ngaa war a gore te waa war a la defar yar la ba nga màgg sol la xam-xam ba nga mokkal kuy nga doog a ñëw ndakaaru amoo woon dara pauvre nga woon ñëw ba Dakar doog a tedd lépp te waa la ak alaaji Malick kon sëñ Babacar may si man su du morom du ma la dépassé nag mais demal nga tuub balaa tuuba wees sëriñ Babacar si Mbaye Suur ila du morom salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum Ira Ndaw coow lu bari na maa ngi dégg lépp sama kilifa nag naa la respecté mais Serigne Mbaye Sy Mansour Serigne Babacar Sy